jërëjëf mbokk yi ñu seetaan wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci pompier seet si xale boo xamante ne ndaanaan la ci làmb barki démb la mujjee defaat preuve am ci làmb dox ci diggante ma Concorde muy BMW BMW nekk xale boo xamante ni la 5 juin bi passé sëñ Modou Niang moo ñu woo fële ci stade Iba Mar dixième édition drapeau président maître Abdoulaye Wade mu nekk loo xamante ne xale bi moo jël combat spécial bi wala ñaari combat la ko def ñaari grand komba bokk na ci moom mi bu bëre combat boobu ñu fas yéene waxtaan a moom lu bare bare ci làmb BMW wane waat na boppam be xale bi doomu ba bawol bi maa ngi lay félicité bu baax di la nuyu asalaamaaleykum ansi bilahi mina seytaan rahim bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw ma sant yàlla julli ci bi maa ngi sant sama ñaari waajur di sant ñëpp di sant di sant fii ma nii pompier di sant sama boy yi nii. Hmm. la nuyu Baye Jili di nuyu sa caméraman. dafay téye micro bi nag. waaw maa ko téye nii di. ndam dafa xam nga ndam dafa neex bu da ngeen di fuuy aj mag <laughs> yéen a ma gën a xam lekk star. waaw ndam moom miin nañu ko moom. waaw yaa ma gën a xam. Hmm. waaw di sant ñëpp rek. combat bi duggoon nañ ci bismillahi rahmaani rahim génn nañ ci alhamdulillahi rabbil alamin hmm. sant nañu yàlla bu baax a baax. waaw. comme corde comme corde xam moo tax nga bàyyi fu mbër sama papa Bada Dione moo ko jël damaa jikki rek mu ne ma da ngay parce que da ba bëree si di jàmm gën. mu ne ma diggante fii ak tabaski date yi jeex na il faut nga dugg ci journée boobu. toogaay bi daal la bëggul woon moo tax moo jël concorde. Hmm. waaw waaw. nga jëm concorde bi ngay jël concorde xam nga ko. concorde bi ma koy jël xam naa ko kay. ah loo xam ci moom. xamoon naa ko nii rek mais xamaan ko bu baax a baax. xamoo ko woon bu baax. déedéet mais xamoon nga ni ndaanaan la. xaw maa ne daanaan la de mais bi ma ko jëlee xam naa ne daanaan la. bi ko jëlee. bi ma ko jëlee ba pare. waaw ba xam ne lekk na avance bi. waaw ah. si laa door a xam ne daanaan la. parce que da ngaa dem ci ñaankat yi dem foo dugg ñu ne la hey kii borom ginnaaw la borom mi mbokk la. foofu nga xamee ne daanaan la. non du foofu sax may am nay mbokk daal wax dëgg naa si yàlla. Hmm. mbër la maa ngi koy ñaanal du amaatee combat bu dul mbëru bawal. yàlla na hmm. ko yàlla may ndam mais bu amaatee combat mbëru moom yàlla ko dóor mu daanu. Hmm. waaw. Euh, nga nga ñëw ci làmb ja keroog nga dugg si ñu gis ambiance gis cosaan gis tund bawol gépp topp sa ginnaaw waaye bawol moom keroog neex la ku bëre daa daanu ku bëre daa daanu <laughs> yow noo def loolu moment boobu bi nga gisee loolu noo def. ah dama xam ne yàllaa ñëw rek parce que day ma daan bokk ñoom ay journée ñuy bëree daan may bëree daan tey duñ ñëwee bëre daanu ah ma xam ne yàlla moo ñëw ak dogalam rek. Hmm. waaw kenn ku nekk la la war a def nga ko yàllaa ñëw ak dogalam rek di di di profité di encouragé ñi daanu ñëpp. Hmm. ku ci mel ni Roubé sama doom day maa ngi koy encouragé Ahmed Lacrosse maa ngi koy encouragé bu baax a baax. Hmm. fils de Mbaye Guy ñi ci daanu ñëpp bébé ñoom ñëpp maa leen di encouragé bu baax a baax a baax. jour bi ngay bëree foofu euh, fils de Balla. jour bi ngay bëree foofu stade Iba Mar. ñaata mbëru Bawol ñoo fa bëre. keroog. ci sa journée bi yaakaar na bëri nga ak. quatre bëri nañu quatre de ah? ak man muy cinq. quatre ak yow muy cinq. waaw quatre yëpp dañoo daanu. non am na ñu daan de. Chelem ci kii alliance bu Fissel. waaw dafa daan. kon de benn ndam ngeen am. waaw. benn ndam ngeen am. ak man muy ñaar. non mais yow bi ngay ñëw. nga xam ne defet bi moom Bada Jonn moom neexleetul. yaa ngi koy gis kalaf gi mu ngi triste yërëm laa ko sax ndeysaan waaye làmb doolu la. waaw ma boobu lan nga xalaat. parce que ah, yow moom boo daan woon beneen affaire lay doon. xam ne fi mu doon moom fulaak fayda rek moo ci des. Mm-hmm. waaw def li nga war a def comme que entraîné nañ ba belende moom. dañ ñëw taxaw def fulaak fayda lu ñu yàlla may ñu jël. Mm-hmm. waaw mais keroog moom daanu moon woon am moom. Hmm. waaw. arbitre bi sifflé na BMW ak Comcor nan nga bëree ak moom. arbitre bi daa soufflé ma dox si kaw. Hmm. mu taxaw dóor gauche droite ma dóor ko gauche. waaw ah. teel ci bët mu daw génn. waaw. Ah. arbitre woote waat mu ñëwaat déedéet déedéet mu daw génn nga def nan. ma dëpp. dem fan. si supporters yi ma xool suuf dem ci sama coach si mu jox ma biteelu ndox bi ma naan. non ah, doole ban biteelu ndox <laughs> biteelu saafara bi nga doon laal sa loxo yi. loolu de booy yow yoo ko dóoree. mu daw génn nga dem jëli butéel. booy bi moo ma ko jox xaw fu mu ko jëlee fils bi moo ko jox. lan moo tax nga koy laaj yaw ah moo ma ko jox ne ma dee raxasu rek kay man xaw ma laan moo si nekk man damay toog rek booy bi andil ma xaw ma affaire bi fu mu ko jëlee. est-ce que doo ko laaj ba xam fu mu ko jëlee mais dóor yooyu kuu la wala gàllaaj la. kuu la dal na gauche bi daa dal daa dagg di. Concorde fii dafa dagg. léegi bi nga ko dóoree mu dagg mu ñëwaat nga dellu si waat ñëwaatal ci combat bi. ma ñëw si waat. arbitre soufflé waat mu jéem a jéngu. dóor gauche droite. ma reculer deux pas taxaw mu laaw ma doxaat si kawam jàmm ko gauche mu dawaat génn. Hmm. waaw mais ba tey toma duraat bi dal ko. mais est-ce que du gàllaaj daw bi mu doon daw est-ce que du gàllaaj parce que. comme corps du du arrièreal góor ci lamb. xam nga lamb moom dinaa la xamal yaar gis nga góor. Hmm. soo ko bëggee wàññi rek dóoral ci bët bi koo bët moom du gàllaaj dara ku baa daal ci bët bi rek. mais yow dóor na la. man dóoru ma de man kay encaissé wu ma dara. daa dalul. encaissé wu ma da doon laaw rek ma avancé yow yaa ngi. ah non Paaw Bawol yi di avancé yow kay avancé da <laughs> doon dóor Paaw Bawol yi di avancé. avancé naa waaw saa yu dugalee gauche dama koy avancé ak sama droite. ngeen bëre yéen ñaar temps bi wala ngeen am ñaar nga jël avertissement moom mu jël avertissement ñu disqualifié ko. parce que boo amee cinq avertissement règlement bi daf na dañ lay. disqualifié daa am cinq jox adversaire victoire. ñu jox la ndam moment boobu gis naa nga ne supporter na ñibbi. ndam loolu bëggoon nga ko wala daan ko nga bëggoon. non man moom wax dëgg naa si yàlla ndam moom nu ma amee na. Mhm. que doo xoolee. Yékini roi des arènes sax amee na ndam noonu. Tapha Tine ñu mag amee na ndam noonu ak ñeneen bala Gaye amee na ndam noonu. Mhm. yaa ngi dégg Modou Lo amee na ko ndam Lac de Guiers. Mhm. ñi ko amee ndam bëri na moo tax nag du ma ko bañ parce que ñooñu ko amee ndam ñëpp ay champion lañ te damaa bëgg di soobee yàlla incha allah li ma sama mooy fa ñu teg seen tànk ma ko loolu laa bëgg ci kattanu yàlla. sa combat yaa kom code moo nekkoon sa ñaata combat. moo nekkoon sama huitième combat. huitième waaw. nga am ñaata victoire. huit victoire. ah. huit combat huit victoire. kon booy yi mënuñu laa raatale fi mu toll ah man kay fi mu toll damaa bëgg a jël ci gannaaw yi rek. man booy moo la war a faxas ci booy. booy fii amul booy bi ma mën a faxas fii. lu man kay bu ñu yeboo jox ma ci ñoom ay caatu yoof yi rek. non caatu yoof moom yaakaar naa ne du sa morom ci làmb. ah du sa morom. caatu man bëree gu ma de ko dóor mu daanu. man damaa wër Youssou man damay xeex damay bëre. damay xeex damay bëre. façon mbër bu dee damay dajeeg moom. Hmm. waaw. loolu dara. ak kan. il jox ma ci ponkal ma mën na xam man maay kar caatu yoof bëgg naa caatu yoof bëgg naa diggante Ada Fass ku li fay. ku daanu wala ku daanu. lu ma lay doyee. ku daan lu lay doyee. ku daanu lu ma <laughs> daan lu lay doyee. ñoom ñëpp dégg nañu muñal ko. waaw waaw. man huit combats laa def huit victoire. moom pourtant foofu jaadu ku daan ak ku daanu yëpp mën nga ko am. te man dama la bëgg a xam ne suur combat Boursine laa dugg ci lam. Boursine Mamaya. stade Iba Mar. ci laa mës a bëre ci laa bëre fii Dakar. loolu kañ la 2018 xaw daan naan nga vraiment daan naan. da ko ensonné sax. vraiment. Père Badajon moom mayut jàmm may ma salaam saa yu ma génnee fi mu toll nii kay moom ku yéex sax doo léegi nga dégg ñu ne amaat naa combat parce que moom xaar bi bëggu ko. nee ma mbër bu daw de xaar da ngay bëre dem dem sa yoon. mais huit combats huit victoire te dégguma benn xale bu mos a génn ne jox leen ma BMW lan mooy. sa problème xam nga nag wax dëgg naa si yàlla bàyyi jiile. la affaire bi nekk rek mais xamante nañu. yaa ngi dégg. Hmm. kenn ku ne xam nga ki la man. mais moom ku ko ci jël doo doo mobiliser lu mu mobiliser wul mbooloo moom am nga ko moom. du ñu mbooloo duñ ma dàq xeex duñu ma dàq bëre. moom kay am nga mbooloo macha allah. waaw am nga bëre bi am nga xeex bi am nga gàllaaj bi. galaaj gi <laughs> gàllaaj gi ngay bàyyi. mbër kenn du tudd gàllaajam. gàllaaj amu fi yow gàllaaj bi amoon du ma ko dóor mu daanu. ah mais tam xool ñaata ku laa ko sarse. bari na. waaw waaw. ma ay soo technique ñëw foofu di ma tàllale loxo. soo technique bëgg nga bëri. <laughs> waaw soo technique man. soo technique ma daan garaam concorde garaam la de moom lu mu bëgg. daa bëgg nga may ko sax ma nii may ko soo xam nga la yow del sangu. ah waaw mu ngi sangu gàllaaj lay sango soo daa war di sangu njampeeg saabu wala mu sangu njampeeg omo kon. non mais yéen xam nga nag wax dëgg naa soo dafa tilim quoi. billaay soo dafa tilim. mu ñëw foofu naa am ay nii di dëkke di ree looy ree doo may dëkkee da ngay fas safu grand combat bi bëggoo ci kenn ñi la bëree grand combat. non non ñooñu kenn kenn andi foofu sareet sax li ñu indi ma xaj na ci sareet man dama ba ma bëree da ngaa gisati kenn ci lamb ji. mais yaa ne say supporter nañ leen ñibbi. lu ñu ñibbi lu ñu fay def. doo fa bàyyi ñu taaral bés bi. bon bés bi kay taaru na bés bi kay ba ma bëree ba tuus ba bëree la taar ba jeex. xaw ma lam si maa ko yoroon keroog. Hmm. maa def la fa am yëpp maa ko def. nga ñibbi bawal. ma ñibbi nga dem ana ana supporters yi mbooloo mi nga. xam nga ay supporters yi ma am mooy ay supporters yu liggéey laa am dañuy xëy wóor na yàlla moo tax doo ma tëgee dimanche fii dama koy tej force damay feesal stade bi di sant sama supporters yëpp. booy yi. Hmm. ñii laa fi des ñëpp liggéey nañu. ñii nga jam ñaajo ñii nga Medina ñii nga euh, Sandaga ñii nga Castor ñii nga Saldewan. ñii nga Paka Lambaay ñii ñee nga géejawaay waay ñeneen ñaa nga bawal parce que suur combat bi kaar moo jógee dëkk ba ñëw fii. ndeysaan billaahi hmm. di profité nag di lancé appel maire bi Jibi Thiaw maa ngi lay woo nga jàppale ma. Jibi Thiaw mos na la jàppale mosuma may 100 francs mosuma ko may. bi Jibi caw mosuma ak yow ni nga mel bawal. mosuma may 100 ah Jibi loolu ñaaw na de yëngul waay. yëngul. amul benn autorité boo xamante ne nii nekk na bawal moom mos a may 100 ne ma def ko sa combat. ah amul. ah li may taxale sama booy yee koy taxale ñoom Salif bu beem ah yaa ngi dégg maam bu baay Karim. booy yi ñoo koy lijjanti. di laaj booy ay téeméer téeméer booy démarré téeméer téeméer lijjanti oto bi ñëw fii. moo tax mbooloo moom duñ tabe sama ginnaaw du ma am droit def benn erreur. damay hmm. man lam ji lu mu laaj dama koy def. autorité yi Bawol yaa ngi leen woo téléphone yaa ngi jël sa téléphone wala nga dem fa. dangay dem ñu naa la jaaral ci kii nga jaar ci kee mun naa la xaaral ngay patienté wu ba doo xam kañ la xam nga te préparé combat di nga dem ba moment boo xamante ni doo mën di doo mën a xaar fenn xaar bu yàgg affaire yi xaar bi du baax déedéet da ngay am problème mu sara sax des fois bëgg koo génne mu tëll a tij mm-hmm. sama booyee ciy jàpp booyi nekk bawol sax barke alxoon ay tafaaf ay giri lamin jata dañ ciy jàpp bu baax a baax jata maa ngi koy sant bu baax jàpp na ci combat bi mm-hmm. xam nga te loolu neexul billaahi walaay di bëri amoo kenn ku la jàppale booy ñooy ket fii dañuy tax jël photo yi booy ñooy jël photo bi dem kerti lu ñu toggee añ fii barke alxuraanu karim di sant borom bitig bee moo ma may diw ak ceeb. may na ma diw na ma di produit bi ma may. hii boutique boobu. Ibrahima Bitik kooku de ute naag Mouhamed Bitik sama xarit. Ibrahima Bitik moom wax dëgg loo la la de mais wax dëgg naa si yàlla. ndeysaan sant naa ko gërëm naa ko jàppale na ma borom kër gaa ngi ne toog Cheikh Fall man fayu ma ndox fayu ma courant fayu ma sang fayu ma dara. ndeysaan maa ngi koy sant moom itam di ko gërëm. Hmm. di sant sama mag Bamba. actuellement nii ci làmb fan nga jëm. fan laa jëm maa ngi déglu sama papa Bada Dione ñi ma la wax duñ ma leen joxee ma bëre ñoom. benn nga fi tudd caatu Yoff rek nga fi tudd. ku li fay Ada Fass ku daan soxla naa la. waaw yaa ngi dégg. waaw ah. boobu la 26 la ñëwal samp si ndënd. damay samp kay ah. damay ñëw kay. ak kan. Ah, kan la di waay. Maama fi mu toll newut ci dara. Maama Lamine ba men kuy Maama Lamine. ñax jëriñu nekkul ci dara. ñax jëriñu mii. <laughs> waaye ndama neex waaye oh. ndam daal dafa leer fi yaa ngi laaj ci dara nekkul hmm. ci dara billaahi te bàyyi jili bala nga maa xam il faut nga jox ma ñooñu barke alxuraanu karim ma mën a jëflanteeg ñoom ñii may bëre duñ samay adversaire parce que saa ñu simee ko dama leen dëpp doole far force. waaw dama leen dëpp doole. doole am nga ko de macha allah. te njool nga tànk yi fees na del de. <laughs> il faut ñu jox ma ci ñooñu rek. ay caatu yof yi ñaq jëriñu nii. ma bareek ñoom. Hmm. billaahi maa lay jaajëfal bu baax xam naa ni li dëfandoo ci nag bi xajandoowul ci cin bi. mais nag dinaa sant de. ayca may naa la nga sant ba suba ci heure bi. suba ci heure yi waaw. mafia càq-càq bi arrêt pompier bi. waaw ah. yaa ngi dégg. COFA hmm. bi ñoo ko jiite. Hmm. di sant sóore bu baax a baax jàpp na ci combat bi. di ñaanal xayloo sama doom day day bëre le 19 may ko ak bépp mbëru Bawol buy bëre maa ngi lay ñaanal ku am combat yàlla may la ndam di ñaanal mbay guy yàlla may ko ndam lu daq ndam yi mu daan am ci kaw armée armée de missile bi armée nag dina xam ne combat yi fi daan jaar ak dina xam ne bawol gépp nag bi yoog bi combat bi combat sama combat la armée foo taxaw dinañu la fa fekk lu leer nañ naa la wax hmm. di woo ñëpp di fan sama booy mafia bi fils de BM fils de Ili di sant sama rak mbaan ngooñaal <laughs> Assane Diag Assane Diag laay sant sama mbokk la maa ngi koy san bu baax di ko gërëm dene ma loo soxla wax ma maa ngi koy sant bu baax di gërëm. ngay soxla rek di ko wax. iPhone bi nag na ñëw Assane iPhone bi. téléphone bu bon de moom yàgg na ci yow. bu bon samay mbir <laughs> te fi mu toll dama war a am iPhone as. iPhone bi tegal ma ko ci nan PC bi lañ ko waxoon nan. bi wala nan. PC tegal ma ko ci PC bi dimbal ma rek yow xam nga yaa ngi may tooñ. yow bàyyi ji PC la ñuy wax. PC wala wax ma lu leer bu amatul loolu bu njëkk la. ah jamonoy mandat suñu maam di sant ñëpp di ñépp ah. di sant waa kër gi. ñoom may su ndaw Khady Diouf yaa daaro yi ñii ñëpp taxaw nañu ma bu baax a baax. di ma ñaanal. di sant waa Bawol gépp di sant mu Yande jàpp na ci combat bi maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant Assane saar ak waa këram ñëpp. di sant waa Ndërëb gépp Moussa Guy gi maa ngi koy ñaanal sama xarit sama doom day ba nga ñëw dellusiwaat yow sama waay nga maa ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax di sant ñëpp Baye usmaan saar ndogo maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di woo ñëpp nag di sant euh, sama papa Badajon sant naa ko gërëm naa ko tax taxaw na ma place papa billaahi walaahi dafa du may bëri du ñuy bëri ñëpp la day mel ni doomam mooy bëri hmm. mais ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm mënoon na ne tey jii du ma son ci yéen dama leen di wutal combat rek bàyyi leen ngeen bëri mais xam nga effectivement tabaski ak te moom ay jees neer lay jaay ak yooyu hmm. ni mu mel mu bàyyi place ñëw soutenir ñu ba yàlla may maa leen di sant bu baax a baax leen gërëm di sant ñëpp bàyyi ji li kana sant nga leen doo fi santaat de boo fi santaat de doo fi santaat di ñaan état bi ngir yàlla nañu bàyyi sama mbokki càk-càk maan yi ñi sàcc ñu fenn ñu jëluñu fu jàmbur dañuy liggéey dëkk ba la ñu jógee ñu dara këfuñu dara dañu leen bay boo yaa ngi nii sama booy depuis combat ba léegi ba biir set lañu ramassé seen moto yëpp yóbbu ko ASP yi policiers yi dimbali leen ñu ngir jëmi Serigne Salim Mbacké ngeen bay sama booy ñu ngi nii toog liggéeyu dara fi mu toll boo yaa ngi nii toog ah. yow noo tudd. Babacar. Babacar. teel micro bi bu baax Babacar naan. Sarr saar Sarr. lan looy dawal cek cek ngay dawal. cek sa moto. sama moto bi ngi Bel Air. mu ngi Bel ku ko jàpp. waa Bel hmm. waaw jàpp nañu léegi mu am mois. oh. nañu sunu daanaka 10 moto te bu ñu jàppee moto yi ñun sax ñuy yóbbaale. après dinañ ñu tëj 100 mètres 15 jours wala un mois dañu koy tëj 100 mètres te ñun defuñu waxuñu dañuy liggéey rek fi ñuy taxaw pompier fii nii fële ñuy fekk jël moto yëpp yobu dem rek waa Ka Abdou Diassé ak ASP ñoo nañ jëlaat sunu cinq moto. Hmm. moto yoo xamante ne dañ ñu ko joxoon pour ñuy liggéey. ñu ñu ngi leen di ñaan nag bu dee am nañ ci réew mi baat. Hmm. ñu bàyyi ñu liggéey. Hmm. ñu sàcc ñu fenn ñu. dañoo jóge dëkk dëkk ñoo di daan suñu doole. ndegem joxuñ ñu nag. te ñu ngi liggéey. nañ ñu bàyyi lu ñuy ñu liggéey. wasalaam. message bu am solo la mais est-ce que duñu leen gën a yombalal kayit yi ba bu ngeen mënee dem wuti kayit ngeen wut ko. ci li ngeen ko loolu itam nee nañu defar nañ ko nekkay ku dem service de mine quinze mille da ngay am carte grise mais bi demee foofu dañ nañu loolu amul mais ñun suñuy moto hmm. dix moto yi nekk Bel Air yëpp am nañu carte grise am nañu assurance hmm. te ñu koy dawal ku ne am nga permis. moto bi am na carte grise am na assurance am na am na assurance. ki koy dawal permis ñu jàpp moto bi. moto bi mi ngi ñaari casque. non loolu du yoon. waaw waa be leer ñu ko jàpp. Hmm. bu ñu ñëwee dix moto yëpp man maa leen di woon bu ne carte grise ak ne ko kii moo ko doon dawal ku ne yaa ngi gis kii mi ngi ak ko micro bi nga yow tamit. ah man tamit gars affaire bi moom dama koy naqarlu rek comme ni ko sa waay waxee. Hmm. xam nga affaire bi moom tamit daal métti gars xëy war joob moo loolu. te hmm. suba ba tey ñooy ne fii ci weñ gi bilaay na trop xam nga moom lañ am yaakaar ko fas yéene cee liggéey mais affaire yi métti na trop. jóge dëkk ba ndeysaan. wër na yàlla en hmm. daal man moom li ma ci sànni moom bërit moom. bu bëgg nañ daal gars yi ñu jàppale ñu bàyyi ñu liggéey parce que tamit xam nga mu am ay pièces yëpp. moo loolu ñu téye ko man samay pièces lépp a ngi sama saak nii mu rëbb ñaari casque nga ci instant ne billaahi wa taala hmm. te fee la ñu fekk dëju defuñu waxuñu gaan di daal suñu doole jàpp xam nga loolu tamit gaan moo loolu métti na trop billaahi vraiment en tout cas jàpp daal xam nga di bëgg gaa xam nga den sant daal bu baax a baax jaajëf am na solo BM daal am na solo sama yaram daaw na saan am na solo waa di profité di sant sama sofër bi rek hmm. Abdou maa ngi koy sant baax di ko saa mooy bëri moom mooy yow du ma amee soxla di sant Xaadim Taaj Ngoundiane di sant ñëpp. Hmm. di sant ñi ma doon ñaanal ñëpp. ñaani agsi na. sëriñ moom doo tudd seen tur waa gaawaan maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm. <laughs> sëñ Bakke si la sant naa la gërëm la. <laughs> Ah. taxaw nga place lay sant bu baax di la gërëm. di sant ñëpp ñi may képp ku ma ñaanal rek maa ngi lay sant Fall yëmbal sant naa bu baax di sant waa yëmbal ñëpp. jërëjëf. waaw ah. bàyyi laat. sa waay bàyyi laat sama xarit. du ma sant bàyyi laat. waaw bàyyi laat moom sama bàyyi laat maam góor sam Baye Laat santal maa ngi koy sant maam góor xaw ma ko moom mais Baye Laat moom sama nit la maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax. ñëpp di gërëm ñëpp. Mm. ndeysaan. Babacar. waaw Babacar wan. Babacar Modou Lama. Modou Lama xam nga Babacar Modou Lama. Babacar Mbaye Guèye Modou Lama waaw. Babacar maa ngi koy sant baax di gërëm. waaw Wasine Toor sama xarit. dafa am combat moog 5 tonnes. 5 tonnes 5 tonnes nag di nga xam ne. ci bool bool yi nga nekkoon waaye am nga am nga combat boo xam ne xam nga foo koy yàqalee. du soobee yàlla foo taxaw suur ba dinaa la fa fekk bala ngaa bëreeg waas dinaa jaar sa kaw ba pare di ñaanal waas yàlla may ko ndam lu set guy ak écrit ba képp ku fa am combat di sant écrit bawal yëpp ku ci mel ni ndewaan bàyyi pasoñ papa ndewaan hmm. papa ba desu maa ngi koy sant bu baax di leen gërëm di gërëm ñëpp gis naa nañ ma taxawoo mbay juufin hmm. amuma seen fay hmm. di sant ñoom buur sin xam nga taxaw nañu ma sët nañu ma maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax ku ci am combat yàlla may la ndam ci barke Sëñ jër jërëjëf maa ngi koy jaajëfal bu baax moom BMW champion la ci làmb bàyyi leen ko xel macha allah ndaanaan la am na mbooloo mën na bëre am na fulla ci li muy def te am na ginnaaw ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax di ko féliciter ci ndab lu rëy li moom am mbokk yi di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb